أكبر bi ñu def juróom ñaari yoon mooy wone ci jumaw sunnatul muhammadiya ni weeru koor jeex na te ñoo ngi door ñaari ràkka yu ñuy màggal fetub korité iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu di bés bi nga xam ne ni wuute na lool ak yeneen i bés yi batax na mboole mu jullit yu demoon ci biir la jumaa sol ay yére yu rafet loole doon prox ndoll ci imam Moustapha ñaw ngir mu wax leen ngeen li nga xam ne ni moo ne ci weeru koor ak ci korité doomi aadama yi su fekkee ne kenn ku ci nekk góor góorgóorlu na ci jëfam ak li ko yàlla sant yàlla dinaa jox résultat boo xam ne man maa la koy defal sama bopp kon loolu mu am ni tey. naam ci koorum ren bi jot nañ ci amal ab campagne électorale waaye loolu terewut ba ñu amal bi la korité ci jàmm ak salaam. yàlla may nañu ñu woor weer ba mu jeex woor wooree ko itam ci sécurité ci loo xamante ne tey jii ñu doon xaar deret bu tuuru bakkan yu rot ci diggante ni nga xam ne noonu la amee woon wala bu doon amee ci diggante campagne bi diggante opposant yi fi ne nekkoon ak ñi nga xam ne mooy. pouvoir bi fi nekkoon. réewum Sénégal jotofal njiitu réew mu bees ci weeru chehru Ramadan ba tax na gannaaw bi nga xam ne ni ñaanal na njiit bu ñu fal bees moo ngi koy fàttali jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la sénégalais yi di dund te di ko ñaax ngir mu indi ci ay saafara. sas mooy ñu góorgóorlu ñu jubal ñu juboo ñu fexe ba dëkk bi ni mu gën a gaawee. dund bi na wàññeeku sécurité bi. na yokk. korité doon ay waxtu yi nga xam ne ni it jullit yi dañuy baalante seen biir moom mi nga xam ne ni moo jiite ci jumaa ji di woo képp ku yeewoo ci biir réew mi ngir nga mën a baal say dëkkandoo te baalu leen ax ñoo bokk ndey bokk baay bokk Sénégal di yàlla ñu fekkee ko déwén yu bëree bari Euh, yàlla nañ ko fekkee déwén yu bëri incha allah. ci atum bi nag sénégalais yëpp fete euh, ba su korité ci benn fan ñu def ko ci mbégte ak dal ñu ngi ñaanal mboole mi jullit yàlla nangul leen seen koor nangul ñu suñu koor te saxal jàmm ci biir réewum Sénégal.